ndax ju rafet rafet la gërëm naa la ci bu baax a baax ndax mu ngeen fi nekkee ba tey itam yéene ni yow toll si di jéem a xam soxla leen seeti di jéem a gis loolu di seen warugar ci ñoom lu ngeen ci man ngeen di ko loolu lu baax la ndax mooy seen la liggéey nga xam ne moo ay ci man nag li ma rek lu gàtt la moo di képp koo xam ne da ngaa ne fii fii réew mi te wax ne defar rek moo la tax a jóg da nga bëgg a liggéey ngir dolli ko réew mi réew mi jëm kanam loolu daal soo ma gisee ak soo ma gisut booy boo xam ne am na maa yow loolu ndax danga ma fekk loolu rek laa fi def def moo fi leneen ndax damaa jàpp ne réew mi lu ci xew rek man la ci xewal ndax réew boo xam ne yow mën na ko gën a jëm fenn amu la dara feneen lenn nu mën a mel ci ngay nekk su nekkee ci ngay nekk su baaxee ci ngay nekk doo ko gën a jëm fenn ci defar ko toogaay bu noonu rafet loolu war nga koo def kër kër gi ma def nag loolu moo ko andi loolu ngeen wax nag ci solo yi ferme yi ñu war a créé ci région bi wala sax ci réew mépp ñu ngeen ko wax yooyu fii daaw itam li nga wax rek mooy li ma leen waxoon loolu ba tey ma nga leen ciy déglu waxtu woo xamee ne jëm nañ ca na ma leen waxoon rek foofu laa ne ba tey fekk na ci bu fekkee ay suuf la xam ne mënees na koo liggéey am naa ko bu fekkee aw nit la ñoo xam ne nañ ko liggéey itam am na fi matériel bi ko war a liggéey it lu mu ci soxla woo mën naa ko am am lu mu ci am it mën naa ko jënd kon nag tàmbali bi ak encadré bi loolu rek daal ñu ko waxtu boo xam ne tàmbali ngeen ko nee ngeen ñu ngi nii rek. te ñu fi jiitu ci lay bokk boobu ba tey nag loolu rek ci moom ñu ngi ci sama xel fu ngeen tollee ñoo xam ne fa boobu ba tey jóguma fa réew mi mu toll léegi loolu ngeen xalaatoon ba di wax naan war nañ koy def ay forage def say ferme ngir war a mën a jéem a mbéy mbéy moo xam ne ñu du ci taw loolu rek mooy di mënta ñàkk ndax mbay daal mënu si ko waajal si taw wax taw xamuloo fu muy jeexee xamuloo kañ muy dikk foog nga am leneen loo xam ne dafay aju dafay dale ko ci loolu le bu dikkee baax na su dikkul it loo tàmbali su matee baax na su matee am ko mën a loolu mooy lu mënta ñàkk amul coow mi itam coono dafay nekk rek daw fi am naka jëkk sax daan am léeg-léeg mu am ñaari at yoo xam ne ndox mi dana manqué aslëf ay li mu tegale ak manqué mu manqué kenn xamu ko xamuñ lu andi loolu te donte ne sax dafay taw taw bu bari yëpp ndoxum tawaat des ci amoon ci mbay ndax nit ñi boo xam am na réew yoo xam ne danga dal ba juróom-ñeenti weer wala sax fukk fay na waaye teewul dañuy def éducation ndax loolu moom mënut a ñàkk ci mbéy rawaati nag fi nga xam ne bu taw baree ñetti ñeenti weer lay doon lépp loo xam ne wees na koo liggéey daal nga di coono investissement bu ñu mën a def doobu mu ci nit maa ngi leen koy fàttali war a def yoon gërëm naa leen sant naa leen ba tey itam loolu moo ngi koy déglu moo ngi koy nekkandiku waxtu bu bëggee waxtaan rek dana ko mën a am moom su bëggee dana ko mën a am moom yan sa biir jërëjëf